ku bëgg ku bëgg transformer la planète Terre en immense comptoir pour commercer avec le diable ku la wattuwul du te ñoom nangu nañu ko ndax bi ñu nee mondialisation ñu ne ah yombul te ñoo ko waxal seen bopp waaye nun nag coy lañu loo dégg def sabin bu ko defee opportuniste yépp ku def discours balaa kontaan ni mondialisation intégration te dara du ci dëkk picc lañu coy lañu loo dégg def sabit te doxul nag ñoom xam nañu ko ndax ba ñu demee ba ci biir dañu ni bu naree am fokk ñaar am ñu changer suñuy concept wala ñu abbi concept yi jàmbur te wax nañu dëgg àdduna ku leen yilifoon ci njubadi bëgg leen naxati ci njubadi te bëgguloo mu feeñ ci njëlbeen gi foog nga wut concept yu bees yoo leen tënke te fekk ci njubadi la ñu jëmaat rek bu gën a yaatu njubadi gu jëkk ka du leneen ñu ne intégration ku amatul loo def ci yooyu ngay mujj mais intégration ni ko yàlla jàngale rek moo الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ها؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون mu يلا نيكو yàlla ne ku bëgg def intégration danga koy def ni waa Madina defal teru ko teral ko waa këram ya ñu nangu seen yëf ñu jox leen ay capitaux ñu liggéey ci waaye intégration boo xam yow mi ko def doom bi nga am bu gisee kooka ni ko neegar bi loolu fu mu jëm doxul bu ko defee discours yi rek intégration mondialisation kenn ku nekk yaa ngi bëgg ñu jox la jaas lëf ndeysaan ñu jox la ci rek as nag te comme ñoom dañ ko barele dañ la ciy jox rek as nga sacrifier ñi ci des ñëpp moo cay mujj waaye mag ñi kenn du ñoom xam nañu fa ñu jële waaw xam nañu fa ñu